andi fitna ci réew mi mu ngi jóge ci justice te du weesu juróom wala fukki magistrat ñi jàpp ni yokkute bu am ci budget performance nax nañ seen bopp budget dafa musa di yokku ay ñooñu Ousmane Sonko yi ci ñu bëri def leen mandat dépôt andi fitna ci réew mi mu ngi jóge ci justice te du weesu ne da nga sàkkal la pexe doo bokk ñun ñëpp tous les incarne un projet d'espérance pour le Sénégal. Tous les candidats qui vont se présenter à cette présidentielle de février 2024, chacun, pour ne pas trop exagérer, est comme une pierre angulaire sur laquelle les habitants veulent bâtir leur espérance. Alors pourquoi ceux qui incarnent ces espérances Ceux qui, pour nous, se présentent à l'élection présidentielle sont comme des pierres angulaires, le mot peut-être un peu trop exagéré, mais cela vaut la peine pour que vous puissiez comprendre qu'il faut prendre au sérieux chaque fils de ce pays. Chaque fils est un fils héritier du Sénégal. Et donc chaque fils de ce pays, chaque fille de ce pays et héritier et héritière du Sénégal est digne de se présenter s'il est porteur d'un projet d'avenir, de prospérité et de, de, de, développement pour ce pays. Alors, ne n'agissons pas comme ces vignerons homicides. ku ñëw rek ñu faagaagal borom tool bi yàlla ku mu yónni ko. parce qu'ils se comportent comme de cette ville Sénégal kenn moomu ko ñun ñëpp ko moom kon boog nañu bàyyi képp koo xam ne yow yaakaar nga ne amal nga njëriñ Sénégal mën nga suuxali réew mi mën nga ko yóbbu fu ko yàlla bëgg mu yegg fa mën nga ko may mu jur doom yi yàlla bëgg mu jur doom yu rafet a rafet ba ñëpp jëriñoo ko. bitim réew jëriñoo ko ngela nañu bàyyi doomu